doxan kat yi seen wéef yi yow pour yow xaalis bi ci nekk ñan ñoo koy jariñoo yambar mu toog këram bee j'ai envie un pizza nga yónnee j'ai envie un hamburger nga yónnee bee j'ai envie sortir nan coco jambon gingembre nga yónnee sa jabar ji la lew chéri 2000 laa eh yoruma xaalis ambuux ga ci bitti zambox ci bitti jabar ji nga takk nag mënoo ci moom tus fii ku fi dul defal teraanga sa jabar kenn warulaa may jabar góor ñi fiy defal seen jabar ñi ngi ne fàng ñépp di leen gis fu seen jabar dox ñu siggi mais takk jabar bi nga koy takk mi ngi mel nu ko neex nga ñëw takk ko yoroo ko faalewoo ko respecté woo ko nawloo woo ko mais am na jigéen